asalaamaaleykum mbokki internet Kéwoulo TV maa ngi leen nuyu di leen dalal ci seen seen préféré Kéwoulo TV tey nag dañoo am mbégte ànd ak yéen ñëw seeti ñi nga xamante ne moom moo ñoom ñooy di euh, njabootu imam Moustapha euh, Diédhiou fii ci euh, unité 24 bu parcelle nara fas yéene waxtaan ak ñoom parce que umpale woon ne kooku di imam Moustapha yoon daa ko daal di teg loxo. boobu ba léegi nag euh, famille am di woy di sàkku ci li nga xamante ne ñoom ñoo di autorité judiciaire yi pour ñu daal di koy teggi loo waral nag euh, kéwuloo euh, ginnaaw bi mu fi nekkee di taxawul li nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi ñu jàpp ne tey dafa jaadu ñu ñëw seeti njabootam pour ñëw waxtaan ak ñoom xam ñoom lan mooy seen mbébét ak ci yan condition la ñuy dundee ginnaaw bi ñu tegee loxo kooku di imam Moustapha Diédhiou te nag ñu am mbégte dalal li nga xamante ne ñoom ñoo di njaboot gi fii ci parcelle Moustapha. Euh, ndax mën ñoo xamale kan mooy sa doom bi nga xamante ne moom moo di euh, Moustapha. Moustapha xale boo xamante ne ku ma yëg la xale boo xamante ne ku ma yërëm la xale boo xamante ne ku bëgg boppam la xale boo xamante ne bëggul dara ci nit lu dul ñefe boppam ba am dara loolu mooy dundam. xale boo xamante ne euh, amul lenn lenn loo xamante ne lu metti lu muy xalaat ci nit xale bu am yërmande ba ci jabaram bi amul lenn loo xamante ne gis naa ko ci moom ci wàllu fitna ba mu jaaxal ma man mii yaayam koñ bi ba koñ bi daj boo nee kan mooy Awa Goudiaby dinañ la wax kan mooy Awa Goudiaby ndax lan awogu jaabi jàmm rek la seex ak nit ñi awogu jaabi xamul fitna awogu jaabi amul xamul xuloo yónnee naa fi njaboot ju sew waaye kenn mësumaa dégg kenn mësumaa atte ak li ma fi yàgg yëpp te damaa yore njaboot waaye kenn mësumaa atte ci koñ bi kon jàmm jooju ma ma def sama bopp moom laa def ci sama njaboot yëpp suñu njaboot xamuñu xuloo xamuñu xeex xamuñu tux xamuñu baal bañ nañ ko sax ba suñu xew musique du fi am ndax wéetoo ci suñu borom rek lañ moo ñu ñor ba na suñu doom bi musafa, bu muy xale la papa ji gis ne moom mu ngi def juumte parce que nit julit boneke julit nga yor njaboot da leen war a xamal yoon diine bi loolu amee ñi amoon ci bégte nan dugam alquran keroog bi ko papam jëlee Casamance li ko tax li tax papa ji jëlee ko Casamance ki ko doon jàngal moo génn àdduna mu génne àdduna nag ñi bëggoon ko fa bàyyi mais papa ji ne ma xale bi duma ko fa bàyyi parce que man li ma jàpp rek laa jàpp te gëm naa li ma jàpp te dinaa ko def bu soobee yàlla yàlla ànd ci ma ànd ci bi loolu amee bu mu ko indé fi mo amone ben oustaz eh, ñu ngi koy naan oustaz mohammed Lo ño bok jakk ji suñu jakk ji ci wenkat bi mu gis ko ci biir jakk ji mu neex ko lol mu neex ko lol mu ne ma awa man de oustaz Lo may de affaire am daf ma neex tudé nako ko sa dom tudé nako ko waaye dama bëgg daara Koki bi may dégg comme ñoom waa Louga dinaa ko waxtaanee loolu mënumaa jëlee Moustapha yóbbul ma daara Koki bu mu waxtaanee ak moom Moustapha Lo kii euh, Mouhamed loo mu d'accord ne amul benn fekkuñu fii ñu amoon ci mbégte am ci yaakaar Moustapha fu mu nekk ni du palaasam kaso bi du palaasam wax nga ko sànq léegi nii kii di seen doom di euh, Moustapha def ngeen ci moom euh, yaru diine. Mm-hmm. nitu diine la waaye tey bokk na ci li ñu koy toppee li tax sax ñu dugal ko fi nga xamante ne foofu la nekkee. Mm-hmm. bokk na ci lu ñu koy toppee li nga xamante ne moom moo di apologie terrorisme maanaam euh, lëkkaloo ak ay waay waay defkatu ñaawteef bokk na ci tamit appel à l'insurrection maanaam wootee fippu. yu xeet yu mel noonu ndax yow jàpp nga ne ki nga xamante ne sa doom la nga gis ko muy mag. gis gis euh, li nga xamantene yar diine bu nga xamantene mom mom ngeen def ci mom mhm. ndax yow jàpp ngeen mustafa dina dugg ci euh, xet yi mel ñaw tef yow loolu musuma ko musuma ko xalat musuma ko xalat te loolu musuma ko gis ci mom melukan boobu musuma ko gis ci mom te musuma gis ci waxinam bokk ndax xale buy def xam ndax buy dem ko dafa nekk loo xamante te ne bett na ma trop trop trop trop bu ma ko yëgee dama mettu loolu guddi gi nelaw ma ba bërsët ndax li ma bett la waaye bi ñu ko waxee affaire terrorisme bi koo xam Moustapha mosul génn ndakaaru mosul génn ndakaaru bu dee xam kokki gii ak Casamance mosul génn te mosuma koo gis mu indi fi gan boo xamante ne xaw ma ko mosuma koo gis waaw kon bi ñu waxee terrorisme Euh, damay jàpp ne loolu affaire noonu la parce que man nekk naa fa moom Moustapha day dem di jàngale di ñëw day dem di jàngale di ñëw keroog bu mu demee jàngale ji ñëwul ba ci guddi gi ñëwul magam jóge fële fu muy liggéey ñëw fii fekk ma fii mu ne ma Moustapha de dañ koy arrêté ma ne ko Moustapha dañ ko arrêté ci lan mu ne ma affaire xaw ma vidéo dañ ko jàpp man ne ko man de Moustapha vidéo yi ma koy gis bu ñuy tabaski wala ci weer koor bi nu muy kiyee nii ci euh, jàkk jeeg yooyu yooyu laa gis waaye affaire terroriste yi bandi yooyu man affaire politique bi diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko déglu naa kaset bi buñ ko tegee ma xamante ne nit ku nekk boo nekkee sa réew day am looy bañ peut-être foofu wax na xëy na dafa juum ci ñenn ñi koy déglu ba tax nañu ñu arrêté ko ci loolu ndax loolu laa jot a dégg nee nañu video la def moom lañ ko téye ma ne leen vidéo la def moom lañ ko téye mais ma ne leen teg leen ma mu déglu video bu mu wax wala dafa saaga wala lan mais bi ma dégloo vidéo bi dégguma ci ay saaga dégg naa ay xeex ak yooyu ak nit ki bu la bu fekkee ne tooñ na la boo ko mënul baal nii nga war a def nii nga war a def loolu moom déglu naa ko ci mais affaire yi euh, kii nu mu tëddi théorie bu ñu wax looloo ma jaaxal ndax moom gisuma ko ak gannaay musul yor gannaay mosul xaritu ak kenn koo xamante ne moom ki may jaaxal. Euh, kii di euh, Moustapha di sa doom buñ ko tegee loxo ak léegi mot na juróom ak benn weer ndax yow bu ñu bu mu duggee si kaso bi léegi dem nga seeti ko. bu mu duggé ci dem na fa 4 fois ba sama permis jeex musuma tok ndax mu bëgg xam num fa nekké na fofu du am bi nga démé seeti ko kaso ci euh, ci ban anam nga ko fekk ak bi nga waxtané ak mom euh, lo gis ci ci ci non man bi ma ko démé xol ko ah dama xam nit ku gëm yalla la nan nit ku gëm yalla amna na xam tane da koy téye ci xolam donte mu ngi daj lu metti du la ko won loolu moom am naa yaakaar ci moom Moustapha dafa gëm dafa nekk koo xam ne ku gëm moo tax moom lu ko ci fekk rek xam naa ne dina ko gérer parce que moom gëm bu mu gëm suñu borom te man loolu laa gëm papam loolu la gëm bien que nag am na jour yoo xam ne daf ñoon papam mun naa wax ne li ko gën a yëngal ci feebaram kila bokk parce que moment yi mu dem ci la papa papa ji feebaree defi AVC la amoon ci jamono bi Moustapha safaa ma daan téye papam fii moma daan dimbali ndax néegam baa ngi moo ma mu nekkon lu ma metti nak metti won na ma ba ci kanam yalla dama ci mënul dara nak ma bëggon nak monsieur le président nañ ñu dim nañ ñu sarax ngir yalla rek wax jé dëgër rek waaye jumute la la lo xamante lool la ko mëna jappé ndax nit ko xamante xalé bu ndaw la 92 la judd wañu lu at lu at xalé bu ndaw la xëy dafa ci wax mota mu demee ni ñu bëggoon nak ngir yalla rasul mu dimbali ma rek bayiko mu ñew sét njabotam tawam bi man la gëna tak takk lu tax ma jël ko tak ko ndax sama dom bi nek fi te Moustapha bu musan gene day yobbu xalé bi fu ne ba xalé bi tak ko amna mama yo xamne daf may nan yaay ana Tafa man ko Tafa nek fi mam ana Tafa mom daf may wo yaay daf may wo mam. waaye boo gisee mu jël xale bi taf ko pour mu mun a wàññeeku ci jabaram dafa jabaram tamit guddi yooyu sonnoo na te mu ngi nekkoon début avec ki début ki grossesse bi mu métti woon loolu ma nekk fii ci sama jaaxle papa jaa ngi feebar moom mu ngi ne ni doom jàmbur la mu nekk ci man. tey euh, euh, kii nga xamante ne moom moo di sa sa jëkkër euh, yàlla moome na ko. Mustafa mu ngi ci ci nyari nanu ngay dundé ñaari nakar yo nonu bolé ko ak njabot bi nga xamantene amna ci njabot bu sew ana japp ci yalla rek gëm yalla rek suñu borom xamné lu fekk rek suñu borom mo la koy nattu man ku gëm suñu borom la ku gëm suñu borom la ci loolu laay sax ba këram may wuyu suñu borom dama xamantene mustafa fu mu nek nattu la ci man na doomu aadama buy daagu ci kaw suuf fa yalla nattu la kon ma jappé né lolu natto la bima yalla tek gëm na ko nak bay lepp ci loxo yalla jàppoo ma nag ko ko tek damay japp né yalla ko tek di ñaan suñu borom saa su ma yan na fa yalla génné ndax fofu du place am Moustapha mérité wul tok ci kasso ba gëm borom mom la man ni yaayam ma gëm tek ci kéro bu papam génn àdduna metti na ma metti bo xamanteni ne ko yërëm bo xamanteni yalla rek xam mais lépp ma ne suñ borom yaa ma ko joxoon delloo naa la ko fu mu nekk yàlla nga aaral ma ko kon ni ma ko joxee woon man aw ma lenn lu may yaakaar lu dul yow borom bi loolu laa ñaan ci sama julli te bu soobee yàlla yàlla mi nga xam te ne moom laa gëm ci ci moom laay wàkki noo ba karaw raw muy génn kaso ba aduna heli wali jali so wonamo yeli dañata ko ñaami so wonamo yeli dañata dole euh, Basirou yow Moustapha rak la ci yow ndax euh, ci nu ma nga tey mun nga ñoo xamal kan mooy sarak di euh, Moustapha waaw comme niñ ko waxee Moustapha rak la ci man am naa ñaari sër ci diggante bi sax avant moom parce que ñu bëri imam Moustapha lañ koy wax c'est vrai imam la mais aussi c'est un jeune homme quoi xale la parce que euh, mi ngi le 20 20 mai 1992 donc kooku xam nga ni xalé la euh, Moustapha xalé xamuñu ko won sa si en fait parce que mom, bo seetee si sama njabot papa sam papa dafa amone njabot ñu bari da leen duggal école mais dafa néwon ci biir njabotam foog mu am ko xamné ne kooku alxuraan day nekk ci dënnam manam alcorane rek lay jang donc ci jamono joju Moustapha mo ci gënon nekk xalé te xam nga ne alkuraan moom ci xale la gën a gaaw mokkee pour mu sol ko ci dënn bi après si la defoon choix ci moom mu ne léegi moom ñii bu ñuy jàng école française ak yooyu kii moom foog mu yóbbu ko daara ci la njëkk a yóbbu ci benn mbokkam bu nekk Casamance bu yoroon daara foofu boobu la xale euh, Moustapha dem boobu mu ngi ne xale bu tuuti foofu la dem jàng alkuraan yàlla def nag bu mu fa nekkee di jàng c'est vrai mi ngi doon suivre école l'école mais alkuraan bi moom da ko nekk base wala commencé jàng alkuraan bi. dem ba ci digg bi après bu sëriñ bi gaañoo foofu noonu ci la daara bi mun naa ne tas parce que njaboot yi ku nekk day delluwaat si sa njaboot ci la ko paa bi récupéré waat mu ñëw mais comme que paa bi dafa amoon objectif ci moom bu mu ñëwee ba toog tamit mu ne non moom li mu bëgg ci moom foog mu am maanaam def alxuraan ci moom ci la jëlaati toogul jëlaat loxo bi jàpp loxo bi yóbbu ko kokki kokki boobu nag la jànge dafay at foofu la nekk ba wàccee alxuraan bu mu dem ba nekk majeur ci la doog ñëwaat si si njaboot gi. donc moom foofu la alquran bi deewaree ci moom yàlla def nag mu doon axlu sunna maanaam ki nga xam ne sunna lay dund donc kooku mooy Moustapha maanaam kiyam yëpp ci alquran la jàng waaw jàng am na tuuti connaissance en français mais soriw ci noonu mais alquran daal moo nekk ci dënn bi moom la gën a xam daal Mm-hmm. comme ni ngay expliqué euh, parcours sarak ji euh, Moustapha euh, mustafa mu melni dafa nek nekk di nga xamante nitu diine la tey Moustapha bokk na ci lu koy topé mm-hmm. terrorisme ak li di appel à l'insurrection ndax yow bi nga déggee tuuma yoon ñu teg ci kaw nga xamante moom di sarak sa xel mun est-ce que xel mun na jàpp ne Moustapha mun na jëfee lu ñu mel. bon man déjà jàpp rek ça a été une surprise pour moi parce que man buñ ñu ma woowee ne Moustapha lañ japp rek ça m'a pris de haut quoi dama né non lolou mënul nek après si le sama grand bi expliquer moi ce qui s'est vraiment passé ba li digal ko bu mu ne woon dafa am vidéo bi circuler ci net bi par rapport à la situation actuelle du pays si la donne waxé ba ñu téye ko comprendre mais Moustapha mom affaire yoy musu bu ñu nee terrorisme sama daf ma jaaxal ko xamni musu sé wax jàng la xam ak jangalé parce que mom su demee jàng bu mu jangé ba pare dafa doon jàngal ay nit. tey jàng am na ñoo xam ne da ñëw fii mu leen di jàngal alquran am ñoo xam ne da leen doon fekki seen kër di leen jàngal alquran am tam benn école boo xam ne dafa doon joxe cours donc man ci loolu rek laa xamoon c'est vrai que doon na youtubeur la mais ci mu doon wax ci lu bari maanaam dafa doon euh, comme genre bayaan la doom def quoi di waxtaan ak nit ñi ci seen diine ak boo nekkee ci néegu sëy nan ngay toppatooree sa jabar du genre bu mu def ci ay vidéo yu bëri moo tax bu ñëwee ba ci contexte politique bi ñu ne ma jàpp nañ Moustapha mu xaw ma surprendre bu ñu indee affaire terrorisme boobu moom dama ne non ni amna bon c'est pas ndax contexte actuel bi voilà parce que comme j'ai l'habitude de le dire ñun Sénégal dafa am des fois ni juger la personne c'est-à-dire yow ci walum diiné ngay gëna wax ci nga xam nga man peut-être suñ né si walum diiné janguma ba mëna téé hadith di ci wax jël exemple mais ki nga xamné mom alcorane rek la Je jël exemple ci Thomas Sankara wala Victor Hugo néna wala diw néna mom ci la mais nag malheureusement Sénégal toll na fenn fo xamné légui boy waxé sa ba tim hadith ba tuddu hadith jël ci comme exemple manam dañ lay dugal comme genre radicalisme wala terrorisme manam erreur bobu mom mën na né sax malchance bobu moko dal parce que ci waxam mom bi wax ay hadith lay wax ak yoy parce que loolu la jang mais waxé ko ni parce que dafa radical wala dafa méchant wala du genre non non donc loolu mo indi jàpp mi moo bu ñu njëkkee teg loolu ci ndoddam man bu may wax ak sama grand frère dama ne balaa dara sax ñuy wax waxu politique lii ñu teg ci ndoddam nañ fexe ba teg ko parce que ñi ngi def erreur parce que bu ñu nit ki ay apologie au terrorisme musul def ci ay apologie terrorisme parce que affaire terrorisme gënoon na fi xat te musuñu ko ci dégg mu wax kon kooku xam nga ne loolu yoonam neewu ci yàlla def nag ñoom bu ñu defee seen defe naa enquête préliminaire affaire yooyu noonu fii ay portable gisuñu fi dara lu am lu en lien ak affaire terrorisme ci lañ teggi woon tuuma boobu nous avons actuellement fait appel à l'insurrection et ak xaw à l'ordre public mm-hmm. ak à la sûreté de l'état du genre donc nous avons tout tuuma yooyu ñoo nekk ci ci kawam te tuuma yooyu tamit bon c'est une première pour moi parce que koo xam ne musul am sa casier judiciaire casier judiciaire dafa musul am problème ak justice donc kooku boo ñëwee rek teg ko ci rek pour moi c'est un peu excessif quoi ci nu ko ah, ndax yow da nga jàpp ne moom Moustapha wàllum ah, ci wàllum diine lañ ko jàpp wala ci ah, am na politique bi ci rax. bon actuellement mun naa ne c'est dans le domaine politique parce que lañ ko jàpp parce que luñ ko suivre poursuivre si loolu parce que moom boo seetee euh, ci euh, vidéo am bi affaire injustice la doom dénoncé peut-être comme ni ma ko Moustapha xale la ñu bëri dañuy naan imam Moustapha mais xale la donte imam nga mais nga am benn esprit boo xam ne xale ngay nekk te xam nga xale des fois am na ni ko il faut que maanaam ñuy jang par exemple di len may seconde chance parce que xale bo ñëwee rek juger ko ci lépp rek dang koy tej ci lu bari parce que bo xamee ni kii âge nga xol âge xamné mi ngi doog a dugg ci li mi ngi doog dund li ni mel pour man amna benen mënon nañ ko taxawé nenen mais xam nga dëkk bi contexte bu mu won la manam dañu toll fi nga xamné tay ji ni loy wax lu jëm ci walum justice wala du genre xam nga tu as de fortes chances que nga am problème ak. Euh, justice bu fi nek actuelle donc man dama jàpp ne si domaine bobu la doon waxe peut-être c'était un peu excessif mais mënoon nañu euh, protéger par d'autres manières bi nga xamné li diko dal li diko dal parce que c'est un peu qui quoi pour man. Mm-hmm. ndax yow euh, biñ ko jappé ak légui seeti nga ko fi nga xamante fofu la nekk ci kaso. waw dem naa dem naa ak mom tok nañ parloir waxtan touti ci. Euh, euh, condition incarcération bi nu mu demee ak yooyu. biñ ko sété ci ban état nga ko fek ak ci ban euh, ban état de santé nga ko fek ak ci ban moralité. waaw bon mom nak dafa nek nga xamné ne na c'est-à-dire ku gëm yalla la donté mun naa am lu koy métti ak lu koy xat-xat c'est rare mu génnee ko ci xaru kanamam mais comme c'est mon petit frère man bo nekkee ci yenn condition yoo xamné metti na wala bëggoo lii dina am boko boy wax ak mom bon day anticiper sur les mots manam du la may sa nga wax c'est-à-dire c'est pour bagn la nga inquiété wu trop sur son sort mais je sais que ça ne va pas parce que ko xamné musul dund li ni mel muso tok bu ne la dañ lay tej ñetti fan do dem séti say mbokk muso ko dund yow say activité nga xamone parce que dafa am poulailler ci bu nekkul bu demul école dem na jënd ay ciuc ñew na jaay ci rek lañ ko xamone ñew jaay ci lay dundal tamit ci lay participer lepp lu muy def ci kër gi donc soutien de famille la en plus. biñ ko ak actuellement ñu ngi 6 mois. si mois dugg nañ ci sixième mois bi parce que je me rappelle mars genn wàll at. voilà genn wàll at. Euh, moom Moustapha bu ñu ko jàppee ak léegi euh, am na jabar nest am na jabar. moom euh, jabar ji ak doomam yi nan la ñuy dund bu ñuy jàppee Moustapha ak. waaw bon événement boobu sax moo gën a métti parce que bu muy dem dafa bu koy jàpp dafa bàyyoon jabar ji nekk diggante donc am na doom doom bi mi ngi toll si ñaari at mooy taawam bu góor yi far nag bu muy bu ñuy événement yi di am boobu tamit jabaram mi ngi nekk ci diggante moom. si la après jabar ji am doom ci am doom bu jigéen donc jabar ji tamit xale la donc xale boo xam ne day nekk day am yor ñaari xale kenn ki mi ngi am deux ans kenn ki mi ngi nekk liir xam nga donc donte nit ñi dina am mais am na fu ñu toll fa xam dañuy soxla seen papa parce que jabar ji du ko wax mais am na guddi yoo xam ne day toog man damay sentir kii mu ngi jooy wala mi ngi kii mais du ko bëgg a kii parce que xale la ñemewul sax taxaw wax ak nit ñi ci caméra. Mhm. donc su qui que euh, moom bu ñu koy dama jabar ji bu muy wasin moom Moustapha fekkee ko. fekkee ko ba léegi gisul doom ji parce que bu mu wasinee ci la fa gaj jabar ji bu mu nekkee ci diggante booy waaj am doom ci la ci la fa gëj donc demagul fa ba léegi donc moom yëg na ni nouvelle bi jabar ji am na doom ci ginnaawam mais jotoon ñu gisante ba léegi instant yii jabar ji moo yor ñaari xale yi.

accès yenn accès yi ci moom moom moo mën a xam fan la ko soxla te déjà euh, présence masculine bi par rapport à ses enfants aussi da koy soxla hmm. waaw. Moussa euh, Bassirou lan ngeen di xaar ci justice par rapport ak euh, nerac. waaw ñun lu ñuy xaar jamono ji mooy clémence parce que ku ñu newoon boo taxawee def cinq minutes d'antenne dina la coûter six mois de ta vie en prison defe naa ni di nga ci xalaataat quoi balaa ngaa wax. donc c'est une première loo xam ne mi ngi doog a dal nit ki musul wax fenen fo xam dañ ko naan li nga wax ni jéeya la wala du genre et il parlait dans un dañ nekkoon ci contexte bo xam tout le monde parlait de résistance appel à la résistance donc moom puisque youtubeur la jàppoon ni tamit puisque son devoir aussi était de participer parce que c'était le message qu'on lançait à tout le monde képp kiy wax kat war nga ci wax war nga wax ci situation pays bi mm, en tant que imam aussi voilà en tant que nitu diiné xam nga lu diiné wax ci ku ñuy noot ak ku ñuy tooñ du genre donc côté boobu non il s'est senti que interpellé mu japp ne war na wax malheureusement lu ils ont jugé que c'était excessif loolu moko indi lu jiyee yii donc li ñaan côté justice moy clémence parce que actuellement ni wax deug fa si c'était une leçon à retenir je crois que ni jàpp na leçon bi quoi xam nga nañ ko may clémence clémence bi nak c'est wuñu ci dara ñu ci dara bañ ñu ci liberté provisoire wala condition liberté conditionnelle bañ ñu si sa nous génn ñu condamné à des travaux d'intérêt général Nous dem di defee leneen loo état koy mais l'essentiel c'est qu'il soit auprès de sa famille. parce que actuellement ni ni may wax ak yow lu ñu dem ba poussé ni ñuy wax ci télévision Ça. mais c'est par rapport à cette situation. parce que leneen aussi loo xam man dafa ma gën a événement parce que jabar ji bu muy am wasin ci même semaine boobu la sam papa gaañu. Oh. te dégg nga sànq mu lay wax nee naa sam papa moo moo ko choisir moom suñu biir ne ko yow yaay doon tey imaamu kër gi maanaam yow laay jël def alxuraan ci sa xol. da nga bëgg a wax ne Mous euh, Moustapha euh, bu bu bu nekk sob la papam gaañu. la papam gaañu malheureusement sa ñun ñëpp bu ñu nee paa bi gaañu nu ñun ñëpp si xel bi suñu moom la ne parce que lu tax mooy paa bi bu muy choisir Moustapha pour def pour def ci moom alxuraan parce que mooy nekk suñu papa famille tey waajur bu nekk. ñaan nga boo génnee àdduna sa njaboot taxaw la xam nga donc moom bu mu demee ba sentir ni loolu noonu fa mu liggéey ko ci famille am si la def tafaa mu doon nit diine boo xam ne tey jii nii bu yàlla dogalee mu jiituñu mu am koo xam ne tey moo koy taxaw ba mu jëg mais malheureusement moo ko yóbbu mu dem jàngi Casamance mu indiwaat ko yóbbu ko kokki mu jàngi alkuraan ba ci ay jamono koor gi jamonoy Covid bi bi nga xam ne dañu tere woon ñëpp julli ji Moustapha moo jiite kër gi koor gi bu mu jeex mo nekkoon imam keur gi ñun ñepp fi lañ jullee ken gënul dem ba si la paapa dañ doon julli ba pare sam paapa da doon juk naan alhamdullilah li la doon ñaan yalla tay ji mi ngi ni xañ nañ ñu dem julli am na ñoo xam ne ngi tok naan ah ñun keur gi kenn jangu fi ko xamne mo ñi mëna tek a ci diiné tay luma ma sacrifier won sacrifié luma bëggoon yëpp tay suñu borom indil na mako moy ki nga xamne tay jité nañu ba ñu motal suñu farata yépp bu ñu paré mu waxtaan ba dernier 10 dernier jours yi lu ñuy naan xiyam gudi gi moo doon yee ne julli nañ ci di fukki fan yu ci donc mu yoy donc da doon wax dernier jour bu ñuy ci di dernier jour paa bi dafa wax ba suñu borom bu baax yaram bi daw donc mi ngi mm-hmm. malheureusement Pabi bi ko touché parce que sa privé ko de liberté yow mag nga amo ben def jamono day xaw a ci yow donc non la ko supporter supporter ba yalla mom ko bu mu koy mom tamit mu ko fekk prison donc ñun bu mu dese bi amé automatiquement lool mo njëkkoon nekk suñu xel tay jii la sam papa fi la doon xaaré mustapha mu génn aduna mu taxawu ko ñaanal ko def lépp lu ci moom parce que farata yi ko war yëpp jàngal nañ ko ko. oui euh, euh, Basirou xëy na tamit Moustapha mu ngi doon xaar bu bu yàlla dogalee lu ñu mel moom mu jiite ki nga xamante ne moom moo di euh, papam wala mu jullee ko. Mhm. buñ koy jébal boromam. Mhm. moom Moustapha bu fu mu nekk fële ci kaso bu mu yëgee dese pa bi lan moo nekkoon réaction. bon à première temps bu mu njëkkee bu dese bi amee jour yëpp dañ doom hésité kenn xamul nan lañ ko ko war a waxee ku ci nekk fi ñun mi ngi xalaat nan laa nan lañ koy waxee Moustapha. noonu ba benn jour la woo jabar ji parce que njëkkoon na ko woo après jabar ji waxu ko dara si la jabar ji ñëw interpellé ma wax ma ne Moustapha de woo na waaye ñemee moo ko wax dese ma ne ko man mi maa ngi ci xaw ma ndax damay bàyyi ba suñ demee parloir ñu wax ko ko wala est bu wootee nii buñ ko déggee mun nañ ko ko wax après ci laañ def waxtaan ak ñenn ñi lañ ne ah Moustapha de si niñ ko xamee donte dina métti moom mais comme koy nitu diine la te xam na lu bëri ci àdduna buñ ko ko waxee même bu métti dina xam ni ma koy gérer donc ñu wax ko moo gën ñuy toogaat di xaar 15 jours pour dem wax ko mun na gën a sori après ci diggante bi yàlla def mu woote doom laaj nuñ def ak tudd doomam bi fan nag si la ko jabat ji yeggaale ne ko ah waaye am na li xew sa ginnaaw ci la ko ne paa bi moo gën a àdduna après ci la ma ne ko mu paas ma ko ma jël di wax moom mais xam nga seconde ñu am du bëri si la ma ne ah mu ne ma bas dégg naa de paa bi nii la ma ne ko waaw ñoo de la yàlla dogal malheureusement. bon dafa feebaroon la tant que mu koy expliquer rek ligne bi dagaat waaw foofu daal lañ loolu la information bi daal noonu la yeggee woon ci moom. waaw depuis boobu nag gisuma ko jaxran pour xam ban situation la nekk mais xam naa ne guddi googu métti na trop métti na trop ci ci moom ndax koo xam ne da ngay toog doon xaar bis bu sa papa di génn àdduna lépp lu mu jot a def ci yow nga ñaan yàlla comme que moom jàppoon na sa loxo ba def lii ci yow bis bi génn àdduna nga taxaw seedeel ko ñaanal ko. fekku la fa wax deug fa yàlla day métti ci xol. donc moo situation yu événement yoy non yëpp ba sarax bi buñ koy def neeku fi instant ni xamna ci fan yi ñu jëm yëpp dañuy waaj dem 40e jour 40e jour yoy yëpp ay ñaan la ay wacce kamil la. pa bi mu gaañoo yagul yagul nonu pa bi mi ngi décédé le 2 bi le 2 août le 2 août la décédé donc yeggaguñ ci 40e jour bi donc jamono ji may wax ak yow ni sama yene deug deug deug moy buñu ñu bu ñu sañoon ñu may ko même donte liberté provisoire wala conditionnelle su ko defee jour bi nga xam ne li nga xam ne wees na mënatu ko dabu. Hmm. mais quarantième jour bi mu doon koo xam ne dina ko consacrer uniquement ñaanal ko waaw. parce que soxla nañ loolu te njabootam wax dëgg fa yàlla jabar ji soxla na ko tamit. Moustapha man magam laa man maay taaw bi quoi en quelque sorte parce que l'aîné est donc je suis maa nekk aîné bi muy sama rakk mooy ko nit ku calme.

ndax yow euh, euh, mën nañu jàpp ne lii ñu mel Moustapha mën na kaa jëfe wala euh, mën nañ ko kaa ji. <laughs> non man bu ñu waxee affaire terrorisme affaire boobu ay ree la ma def sax nit koo xam ne bu mu juddoo fi nekk dëgër ñu yóbbu ko Casamance mu jàngi Alxuraan far sama nijaay boobu génn àdduna ñu indiwaat ko fi yóbbu ko kokki moom de fii la xam kokki Casamance Dakar te wax dëgg yàlla. mosuma gis mu am benn contact ak ak ak étranger wala kenn kuy niroog terroriste moo tax affaire bi xaw ma jaaxal comprendre nga euh, euh, léegi moom la la mu doon wax moom moom la mu wax ne ci diggante Adji Sarr ak Sonko mais dem nañ ba àtteel gis nañu moom la mu wax dëgg la dëgg boobu moom moo ñëwaat kon Macky Sall ngir yàlla ak yonente bi na bàyyi jàmbur na ko bàyyi. bàyyil sama rakk ji nga téye sama rakk ji defu la dara. comprendre nga bayil jambour bi nga tey ngir yalla dañ la ko ñaan ki nitu diina la dañ la ñaan ngir yalla nga bayyi jambour bi ndax lamu wax ba mu tax ngeen japp ko lool mo tax tey buñ defé jugement bi ñu gis ne sonko deful dara kon ngeen bayil jambour ngir yalla en tout cas ñun on est peiné man bëss bima yégué ni japp nga sama rak ba tay la bay APR APR bay nako tay bay nako ëlëk la sama jeju de rakku ci Mustafa jeju ki nga xamante ne moom moo di euh, sa mag mag la ci yow kii di euh, Moustapha yoon teg na ko loxo euh, bokk na ci lu ñu koy toppee bokk na ci lu ko yoon di toppee appel à l'insurrection mel noonu ci benn video bu nga xamante ne moom Moustapha def na ko mu daal di koy partage ci réseaux sociaux yi ndax yow jàpp nga ne li nga xamante ne moom moom la ñuy toppee Moustapha di sa mag ndax Moustapha mun na jëfe lu ñu mel wala niroo na ak nit ku nga xamante ne mun a woote li ñu mel waaw man affaire boobu ba ma ko déggee dama waaroo sax ma jaaxle parce que Moustapha tey boo ma gisee da nga yaakaar ne man maa ko sax mag Moustapha jeune la xale la fii ñu nekk nii fii la fooyee ba mu màggee fi ba mu jàngee nag fii jaar école sama papa jëlee ko ci école bi daal di ko yóbbu daara jaar na daara kokki ba mokkal fa alquran ñëw fii daal di fréquenté fii si jàq kon koku nonu xamuñu fa la mëna jaar ci aduna ba wara mëna doon li nga xamné moy terroriste lool koko wax ay réew la koy def sax wa parce que lool non dafa ëpp sax ñu wax parce que fi Sénégal mosuñu fay gis acte de terroriste wa terroriste buñ koy wax moy par exemple nga gis fuñu éclater bombe wala ñu cibler ay nit attaquer len yu mel nonu mais bu fekke da nga yëkëti sa wax rek ñu accuser le terroriste kon ñun xamuñu fu ñu jëm parce que Moustapha wax fi loo xam ne euh, keneen wax ko fi dégg nañ fi wax yu gën a jéggi dayoo yooyu mais li jàpp naan waruñu ko xañ njabootam ci kàddu yooyu nga xam ne yëkkati na ko en tant que jeune bëgg réewam jëm kanam jàpp naa ne yu mel noonu moom wax dëgg yàlla gars yi war nañ dawal yërmande te xam ne kii jeune jeunesse si si jeunesse bi la bokk te mën na am fu mu yóbbu tey jeunesse bi parce que koo xam ne day jàngale alquran koo dafa yor jikko yu rafet koo xam ne xamewuñu ko sax ay affaire de caaxaan yu mel noonu caractère sax lañ ko respecté kon ku mel non boo ko waxee mbiru terroriste day jaaxal ñëpp. fii ci bi ci biir koñ bi ndax à part li nga xamante ne moom la ci euh, Moustapha ndax mos ngeen dégg mu jote ak kenn ci biir koñ bi wala am beneen problème nga xamante ne ak waaw Moustapha mom loolu koo ko wax sax da koy jaaxal parce que mosuñoo ko fan la Moustapha jàppanteeg nit ñu koo fàttaliku parce que moom kersam mayu ko sax muy muy wax ak nit kersam wax mayu ko sax muy jàkkaarloo nit di yëkkati kàddoom waxatuma laak muy jàppante kenn ci koñ bi ku kon ku mel noonu bu ñëwee ak i ko lu mel ni ñuy jaaxal gars yi nañ dawal yërmande rek te xam ne àdduna bi nii lépp loo gis dafay jeex waaw am na loo xam ne bu la yàlla mayee doole bi yow da nga war am yërmande boo amee doole rek da nga war am yërmande waaw parce defaloo dara yàlla luy tax mu jox la doole boobu kon gars yi nañ dawal yërmande te xam ne bëgg suñu réew rek moo ñu taxay waxee noonu ama boo nekkee jeune nag dafa am baat yoo xam ne day ñëw si sa si sa tàngooru deret waaye Moustapha lu mu wax noonu xam naa ne sax rëccu na ko parce que jàpp naa ne xam na ni foogul woon ni sax mbir mi dina yegg si empereur bu tool nii konoon du ko waxee noonu waaw léegi nag gars yi nañ dawal compréhension rek te xam ne. ñun jeunesse bi lu doxal suñu réew moo ñu tax a waxee noonu kon jàpp naa ne gars yi nañu xalaat ci loolu xoolaat bu baax li nga xam ne moom lañ koy kii nii te bàyyi ko mu dellu si njabootam parce que njabootam soxla nañ ko parce que man suma ma demee ne ba ne la 94 la moom 92 la nga xam ne ñun ay xale lañ waaw peut-être nag boo mu gisee physiquement da ngay foog ne man maa ko mag waaw mais gis nga dañ ko bàyyi rek te yàlla tax.